galère bi ma def yépp ci musique peut-être mën naa ne man maa man man maa ko def pour pour pour galère ci musique am benn moment ñu ma doon sama grand bi mi Italie ñu ne dañ may fayal pour ma dem Italie dem Modou Modou man maa ne woon man musique laa bëgg parce moment boobu noonu taroon na génne ay affaire kenn du la déglu xam nga taxawaat di ñaan ñu ne la yaa ngi nii ñu ne la demal kaaw nga bañ nga ne musique bi ngay topp xam nga. sa famille ñu lay woo ñii di la clash xanaa waa ji ko fa commencé dof ak lépp xam mais da ngay gëm rek nga focus mais c'était des risques yoo xam ne jëloon naa ko. sama xamante ne dund nga des fois au-delà de la musique ci business lañu nekk. business comme. business business rek ah ñu drogue de. waaw comme man <laughs> des fois dañuy def ay def ay voyages yoo xam ne yëngu ci yenn affaire yoo xam ne au-delà de la musique la comme di def ay parfum yoo xam ne dañ koy jëlee ay Dubaï di ko indi fii comprendre ci ay des fois temps yi lu ma bëgg lu ne sama biir xel moom business oto xam nga maa ngi ciy def ak jaay ay collaboration ak tamit bëgg a teg beneen plan boo xam ne c'est c'est typiquement événementiel ak digital loolu tamit ñu ci loolu en dehors artiste bi la quoi parce que ñu ngi job ci benn maison digitale boo xam ne ni bu gën a mag France la mooy Believe ñu ciy bëgg tamit di insérer artistes yi leen woon yoon bi loolu beneen phase boo xam ne daw au delà de job su benn la. Mm. c'est quoi sa relation avec Baye Niass. moom fal mooy jokkuwaay bi quoi ñun moo ñu moo ñu def quoi moo ñu def parce que am benn moment boo xam ne suñu biir live dañu sëgg lépp jël tarbiya xam kan mooy yàlla xam xam lan mooy diine xam suñu bopp te loolu ci buntu Baye Niass rek lañ ko jaar def. te ci buntu boobu noonu xamal nañu lu bari voyagé loolu nañu lu bari voyage boo xam ne c'est dañuy topp dem fu sori loolu mooy relation yi mu def ci ñun. ñu tamit ñu nekk poussé à ce que ni ay nga gis ni voilà fii nga centré sa bopp da am ay famille yi nga xamante ni ñoom ay taalibe Baay lañ voilà lan la demee ba yow nga centré sa bopp. Baay man Sénégal fii euh, Dakar laa ko xamee ah Cheikh Euh, moo doon nekk ak ay nit yàlla dañ ko war a xam man moom dama ne nit boo xam damaa so boo ma waxee benn affaire dinaa xam lan moo tax ñu war ko kii ma dem ba jokku jokku ci moom li ma doon wax ci moom ma gis lu ëpp lu ëpp ci moom ci li ma doon wax ci moom parce que boo xoolee tarbiya moom day noot sa bakkan noot sa nafsu def la nit xam nga fii ñu bëri ñu xëy di dem mais nekkuñu ay nit quoi humanisme nga xam nga dal nga am ëdëb loolu lépp ñun ci tarbiya dañ ko jëlee quoi loolu moo tax on parce que lii Baye di wax rek neen sama taalibe démb maa leen tànn kon ñu nekk taalibe Baye Niass liggéeyuñ ko sens la sens la moo tax ñu boole ñu ci ci sant yàlla alhamdu mënoon nañoo dund ba dee duñu xam Baye Niass wala duñu gëm Baye Niass bu nekkee taalibeem sens la bu ñu xool bu ñu bëggee nekk taalibeem tamit sens la parce que nekk taalibe moom dégg naa taalibe bi ñu jeexal benn kilo ceeb benn ngëbu ceeb. kon ñi ñuy jaayante pour nekk taalibeem chaque jour ci suñu comportement ci suñu jëf ci suñu wax ci suñu doxin parce que nekk taalibe Baay du kuy téye kurus gi du kuy wax waxu yàlla sax instant ku koy dund la

may nañu doole boo xam ne peut-être saarement dugal nañu ay avion moo ñu jëndloo ay oto moo tax ñu respecté wuñu moo tax nee na leneen loolu musique moo ñu ko may ak succès mais yóbbuwuñu ñu grade bi nga xam ne ni duñu nite quoi yóbbu nañu grade boo xam ne xàmmee nañu kan mooy kan fuyloowu ñu beewloowu ñu dégg nañ ci dal quoi di dafa nekk benn dimension boo xam ne yàlla dala la fa yóbbu pour nga am loo jàng parce que des fois da ngay yëg benn conseil boo xam ne stade bu fees dell la ngay taxaw di wax nit ñi di la déglu pourquoi mu ko woon def kii mu ko woon def kii am na ñu ko doon rêvé li tax mu def la ko kon am na benn mission booy dox léegi nag mooy comme li ma lay wax rek boo ko yóbbee ci pays yàlla moom sa ah, da ngay xalaat daal ne lan moo tax yàlla def lii ñun ñu ngi ciy xalaat ci loolu noonu chaque instant bu ñu nit waxee soxlaa mun ko mën a faj faj ko. da ngeen nekk ci moment succès. Mm-hmm.

léegi boo toogee di xalaataat derrière cant bi rek ngay gën a yokk da ngay sant yàlla alhamdulilah parce que am na benn moment boo. xam ne dund ñàkk. <laughs> waaw comme parce que ñun peut-être tamit am naa sens juddoo ci famille boo xam ne sonnoon ñu quoi aisé lañu parce que man bu ma defee musique rek man maa jël choix pour def musique parce que fayal na ma ay formation parce que def naa seconde. après ma ne ma def seconde L damay dem def formation professionnelle ma dem fa lay de formation BEP en mécanique générale jógee fa man sama baab loolu la focus woon pour ma def jàng ma jógee mécanique générale dem euh, SENCUP de fa mécanique auto jógee dem SENCUP dem de la force dem n'a ba BT mécanique auto parce que paa bi chemin de fer la nekkoon ci affaire de mécanique la xam loolu la bëggoon ma nek mais da nga ñuy jox suñu paas ñu wàcc ci kaas ba dem ci laay jaay ci studio ba <laughs> presque studio moo yàq suñu jàng xam nga loolu galère bi ma def yëpp ci musique peut-être mën naa ne man maa man man maa ko def pour pour pour galère ci musique benn moment ñu ma doon sama grand bi mi Italie ñu ne dañ may fayal pour ma dem Italie dem Modou Modou man maa ne woon man musique laa bëgg ce moment boobu noonu taroon na génne ay affaire kenn du la déglu xam nga taxawaat di ñaan ñu ne la yaa ngi nii ñu ne la demal kaaw nga bañ nga ne musique bi ngay topp xam nga. sa famille bi ñu lay woo ñii di la clash xanaa waa ji ko fa commencé dof ak lépp xam mais da gëm rek nga focus mais des risques yoo xam ne jëloon naa ko. sama laaj ñaar ñi nga xamante ne ma famille ah doonoon ma soutenir mais xam nga musique mook sport ñoo dafa. genre dafa nekk affaire boo xam ne dafa xaw a am risque quoi ci benn moment yi peut-être mën nga dem ba génn âge boobu moom te doo comprendre que ni lii est-ce que yow yaa ngi dem ci échec comme paa bi mère bi paa bi moom dafa mus a contre mais bi moom dafa mus a soutenir ak yenn grand yi quoi mais chaque jour paa bi loolu noo xam ne te lépp li ngay def rek bu jéem a bu ci échec quoi contre boobu mu contrôle sax loolu bu ñu demee ba xam sax loolu doon la woon contre quoi pour sauver la pour bañoon nga nekk ci échec la quoi mais bi ñu demee ba musique am fu mu bokk na ci ñi nga xam ne soutenir nañ ko. mais bi soutenir na la. Hmm. ci sa bëgg-bëgg muy def musique. Hmm. comme tout un chacun bëgg na teral li nga xam hmm. ci loolu noonu lan nga ci def li ko sa mère nga toog si wàllu musique. waaw ah, loolu <laughs> du lu ñuy wax ci caméra yi nag incha allah ñu ngi def li ñu mën a ah, parce ba tey nekk gunu ay mil multi multi millionnaire ci musique bi nekk ko ci milliardaire ñuy puus te bëgg nañ projet yi nekk ci kanam bu gën a jàppandi ñu gën a defar réew yi quoi mais instant bi ñu ngi puus li ñu mën ñu ngi def loolu nga xam ne attan nañ ko ñu ngi koy def ndànk-ndànk quoi pour pour dire la vérité. non <laughs> mais def def defagu ba dara parce que sama yéene ci ñoom moom ay waajur moom yéene yi nga xam ne nit ñi am na ko ci ñoom pour man réaliser gum ko quoi bëgg naa xëy benn jour ñu ne Diop yóbbu na papaam ak yaayam màkk loolu ay affaire la ba tey euh, aboutiragul xam nga bëgg naa xëy benn jour ku nekk ma jëndal ko oto loolu aboutiragul peut kon li may def def guma loo xam ne ni peut-être marqué gum na ma quoi moo tax du neex du neex a tànn quoi du a wax lii ak lii ak lii. waaw sa souvenir sa bon souvenir enfance bi may doon li ma métti bari na bari na parce que euh, am na benn moment boo xam ne nii. da ngay am ak benn euh, genre opposition ak sa benn euh, waa gàllay parce que hip moo taxoon day génn di dem concert ñëw ñu tëj bunt yi ngay fanaan ci bunt bi loolu bari na mais du ma ne ay souvenirs yu métti mais loo xam ne daal dañuy doon jàngal quoi parce que ñu démb mooy tey taalibe yi dara méttiwu leen loo xam ne yàlla day teg ay affaire rek muy jalaal muy jamaal pour man dañuy jàngal quoi c'est un peu spirituel buñ koy euh, xayma parce que ñun moom dama naan dara neexuñu mais dara méttiwuñu tamit waaw kii démb mooy tey dara méttiwuñu dara neexuñu parce que li ñuy rencontrer ci vie bi dañ ko war a rencontrer mais loolu c'est un état d'esprit la tolluwaay la pour mën a comprendre affaire yooyu noonu. sa carrière lan nga def li nga xamante ni bi nga ko defee au moins bi nga ko defee rek nga féex. fi yàgg ça bopp. waaw parce que mooy li wax artiste rek man leen ku ci nekk fexeel ba benn bu dee jour sax xam la fexeel koo jaayante waaw benn moment moment ñun son bi ñuy taal Sénégal mooy bi ñu def Davido day day dox ba dox loolu a monde bii ay yoo xam ne Linguère ñëpp dañuy xam kan mooy Job sa kan nekk na moment yi nga xam ne nii peut-être emprunté la pour teg ko ci musique bi confirmer beneen moment bi mooy bi ñuy def Sorano daaw ñu guichet fermé am ñoo xam ñu dugg nga taxaw si siggi saal bi fees dell loolu fierté la quoi ay moment yoo xam ne pour man yàlla bu mu ump benn bépp artiste quoi parce que benn moment yu sensible la yoo xam doo xàmmee sa noon doo xàmmee ku la bëgg mais nit ñi dina xam ne yow ci li nga nekkoon di ko jaayante muy am ay jam-jam ak lépp xëy nga ci benn jour nit ñi xam la ci tekk nga ci pour man loolu ay moment yoo xam ne la bu mu benn artiste quoi loolu la mu koy wax booy bu dee benn fan sax jaante leen ko pour ñu xam leen quoi. tey su ma lay. question boo xam ne dama la koy laaj. Mm-hmm. gis nga gis-gis sa perception la boo ma doon jox ay critères mu ne jàpp na réussir. tontu rek ñu Souleymane woon waa rek <laughs> kii benn nit bu réussir loolu réussir mooy famille bu réussir mooy que ñi ngay àndal ñu réussir quoi pour man kooku moo réussir ci àddunaam benn job sobrane yàlla may ko benn carnet d'adresse ci musique ba mu dimbali ay xaritam. dimbali ay mbokam mu xool gauche gisul chômeur xool droit gisul chômeur teg ñëpp ci yoon bi quoi pour man loolu mooy réussite quoi man loolu laa jàppee mais ni benn nit bu réussir loolu du réussite quoi pour man nga am benn bloc am ñoo dimbali ñuy jàppee ñuy jàppee pour man loolu mooy réussir quoi. crise de jikko yi ñuy dund jamono ji. dafa doy waar. crise de jikko yi yow pour yow lan moo andi gars yi joxatuñu joxante wuñ cër Oh. waaw mais loolu base la rek base la base la parce que ci éducation la rek soo xoolee nit comme man li ma la expliquer sama jaar-jaar ni famille yi doon tegee choc paa beeg mère man sama baab dafa métti woon lu muy daf ñuy yar yar bu metti yar boo xam ne daf ñuy xam loo àdduna léegi nag koo xam ne jaarale nga ko foofu noonu xam loo ko lan mooy ñàkk ak lan mooy am pour man kooku bu génnee wax ak yow di nga xam ne kii c'est un gars respectueux ba pare li manqué tamit ci crise de jikko yi mooy ponctuel wax heure bi nga ñëw heure bi wax dëgg tamit pare bu bul nekk hypocrite li nga li nga sentir nga def ko parce que ñetti yooyu noonu bu réeree ci nit rek doo xamante lu muy ndurool ñàkk respect dafay am quoi su la benn météo woowee mënoo ko def. ak yi nga xam ne mais loolu éducation la xam nga man moom ñemewuma ñemewuma euh, jël euh, internet taxaw nii ñu may xool ma leen may saaga loolu ku ci nekk da ngay am foo bokk am loo loo ñemee def ak loo ñemut def lépp dafa dafa dafa ci base bi ci biir kër gi base bi bu échecgee ci loolu rek peut-être da ngay pour man. am na benn génération buy ñëw di def benn clignoté boo xam ne nii c'est un peu un danger mais gars yi bu ñu am naa doom keneen am na doom bu ñu taay tamit ci delluwaat ci éducation de base yi ku nekk bu yaree sa doom peut-être dinañ am génération boo xam ne dinañ gën a correct voilà. comme ni ñu koy defee saa su nekk ah là je suis en face de moi ki nga xamante ne mooy Job Safin Garga on présente

soo génnee li may wax sama gaay rek baaw maan lan lay laaj Youssou Ndour ana relève bi ñeneen <laughs> ak ñeneen est-ce que yeneen artistes yi dañoo choisir pour de Sénégal ñu leen di bouquet festival yi duñ ci gis gars yi loolu yëpp booroon ko mën jaayante di osé di teg musique bi ci benn cadre ku ci nekk da ngay jël ses responsabilités rek xool lan ngay proposé moo tax boo xoolee sonorité bi ma la bi ma génnee temps yi sori nga ma boo xoolee c' est typiquement bi nga xam ne si est international ñu ci job ak ay gars yi nekk foofu moom di ci am yéene xam defa moom ay collaboration parce que tamit suñu dëkk la il faut tamit ñu ñëw def promotion bi pour gars yi gis liggéey bi tamit di wax gars yi tamit nañ dem YouTube tapé job sa brand sori nga ñu ça parle il parle de relation à distance xam nga toog fii di daan doole ci kaw bi bàyyi sa jabar fii nii xam dund sedd fii bàyyi andu cuuraay fee xam nga namm naa sa jaagal jaagal yooyu yëpp ñu ci biir quoi pour gars yi dem xooli ko YouTube partager like gars yi bu ci bari noonu ci YouTube ko xam nga cëp savant

en waaw loolu moom ñun en tant que porteur de voix am na ci parole parce que am na dëkk fu muy toll comme ay télé yu mag dañuy invité ay artistes yu mag comme ay Alpha Blondy Tiken Jah ñu ñëw wax seen contribution parce que ñun tamit. ci at yooyu lan lañ toll Bob Marley da doon jubale ñaari dëkk ci ay micro wala waxam conflit ak yenn affaires mais am na foo xam ne politique bu bu fa yeggee bu ko population bi duggee pour man jaru ko quoi parce que Sénégal dafa am benn benn esprit bu bu bu mu taajoo boo xam ne Sénégal newul dëkk bu xam violence nekkul dëkk bu xam guerre nekkul dëkk bu xam rayante. waaw loolu dañ ko fi gis mais nekkul oh, li ma benn paa di. ki ñuy ñaan guerre dañoo fekkee wul guerre buñ ko fekkee woon duñ ñaan guerre te ñun suñ dëkk bi dafa nekk ci benn voie boo xam ne ci construction la nekk ñun on n'a pas besoin de ça quoi dirigeants yi ñoom lees waxul nañu dawal yërmande population bi parce que suba tamit day am parce que population bi man ni ma leen gisee ak seen réaction yi kenn mënatu leen a nax bu heure carte jotee dinañ booteel ñu war a booteel ñu war a jël réew mi jël réew mi léegi nag dafa nekk ci ñoom ñu teg ko ci yoon teg ko ci yoon bi mooy que li nga xam ne ni constitution bi nangu ko buñ ko def li constitution bi nangu ñu def ko élection yi ñu organiser ko mu jaar yoon ñu ne war a setal ñu setal leen ñu dem élection ñu def ko lépp pour man ci discipline ci man yërmande ci. ci gis-gis daal man pour man moo gën violence bi ko man en tant que. artiste bi taay muy gis euh, dañ leen di tuumal ah, loolu yàgg na Sénégal parce que. est-ce que loolu a nekk. non. man boo génnee ci kaaw bi nii rek boo ñëwee Sénégal loolu moo ci côté comportement policier gendarmerie. nga xam ne ñun li dese dafa bari justice warul nekk buy jeng warul justice dafa war a teg lépp li nga xam ne ci yoon la jox population bi lim moom population bi jox ko lim moom loolu la àdduna di doxee suba ba jant soow fii du yoon des fois man lu may gën a énervé Sénégal des fois da ngay soxla benn extrait rek pour nga am ko da ngay da ngay da ngay da ngay souffrir dafa am affaire yoo xam ne pour man lépp war ko mën a organiser justice bi ñoom ñuy doxal dëgg parce que justice bi bu doxalul dëgg rek day am njëng parce que instant bi dafa am beneen menace boo xam ne dafa ñëw mooy internet dafa ñëwaale ci societé bi léegi kenn mënatul nëbb dara lépp gars yi dañ koy am fat fat vite fait gars yi dañ koy am léegi nag dëkk bu nee ba toll foofu noonu rek lépp li nga xam ne doxul wala tegoo ko ci yoon rek am faay te dëkk bu amul justice moom yàlla ñu ci yàlla musal ci ci ci ci beneen côté bi day mujj. lettre bi nga xamante ni war nga ko sànni aussi si parti pouvoir parti opposition waaw ah, moo xam ne Sénégal suñu Sénégal la ñoom seeni papa seeni yaay ñun suñuy papa suñu yaay ñun ñëpp ñu ngi bu ñuy dawal nañ jéem nañ dawal dëgg app bi leen jox bu matee ñu xam ne mat lan ñu jóg gaay organisation ñu war a yoraat réew mi yor réew mi opposition bi da nga koy opposition bi pour man nan am patience parce que pour man Sénégal du du ñoom ñi nekk ci kaw ñoo ñoo ko war a mën a yàqu quoi su comprendre boo xoolee ci côté opposition bi dina am ay gars yi ñu bëgg a jël réew mi xam nga na am ay loo yu bëgg a yër mi ay taa mais ku ci nekk gars yi ñu ngi lay xool di ci visionné comprendre bu ñu defee élection peut-être dama naan xeex bi nekkul ci gannaaw ordinateur yi rek di yuuxu nga gars dem uti ay carte électeur votel kin bëgg a votel comprendre ñi organiser élection yi tamit ñu def ko ñu teg ko ci yoon mu am mu ba man daal li may bañ Sénégal li ma koy wax chaque jour ay waxu guerre ak <laughs> je n'aime pas en tant qu'artiste pour war C'était avec Job Sobren dans l'émission Face B. Face B comme on a l'habitude de le faire quoi mais Job lan ngay avec un beauté si des messages euh, concernant projet waaw mais pour wax leen na Diaspora TV bi émission na <laughs> di la bëggee ci question yi. ku deful ndànk rek dem nga dugal ko ci pax <laughs> eh, leen bëggee ah, naan leen dem leen YouTube ngeen xool affaire yi. xam ngeen dem flow yi ji tamit Diaspora TV ñu News TV ñu def affaire yu nice. Then big up the big up Staff, Brand, Music Forever. big up, Meta. Meta. big up man. Yeah. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, votre émission Face B, on l'a tournée avec joie, bonheur, Genevi, avec votre artiste bien-aimé, Jobs Brand. On va le faire avec ñeneen artiste nga xam dañ fi ay c'est avec Lamino. Maa ma avec autre numéro Diaspora va TV payer un Amount